amaat nañu mbégte dalal leen ci émission Rewmi People chaque samedi 16h jàpp 17h la fois passée suñu invité daf ñu defoon un faux bond mais cette fois-ci c'est la bonne Monaya nous sommes très heureux de l'accueillir ci suñu plateau kon tey Monaya est avec nous pour nous parler d'elle de son art qu'est le rap et d'elle-même alors moo na yaa laataa ñu laa jox nga nuyoo ma nuyu ki nga xamante ni bokk mooy ji sama binom ki nga xamante ni chaque samedi ñooy pelloo maag moom ci bile émission ji salaamaaleykum. maaleykum salaam Mimi maa ngi lay ziar bu a baax di la bëggee di bëggee ñuy teewlu émission bi Rewmi People mm-hmm. samedi bay passé comme ni nga naa moo waroon teew mais nag jaam pexeem yàlla ak dogalam. Mm-hmm. waaw du coobareem tey teew na waaw tey du yomb. et nous en sommes très ravis alors de son vrai nom Awa Yoni. Awa Mounaya Yani, c'est bien cela. Je, pour ne pas me tromper, hein, c'est ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bonsoir. <laughs> Rappeuse bénino-sénégalaise, c'est bien cela. 15 ans ou bien plus, vous êtes chez nous, chez vous. Alors, Taïnou Ambekte Dalala, quels sont les tout premiers mots euh, Déjà, euh, Euh, je salue tout le monde et je vous remercie de toujours être au rendez-vous. Chaque fois que je dois venir dans les médias, partager ma musique, euh, parler de ma musique, de ce que je fais. Et je remercie aussi Rémi euh, FM et d'être d'accompagner le projet Petit Oiseau, euh, l'IPI et aussi euh, tout ce que je fais. Mm -hmm. Voilà, merci euh, de me donner beaucoup de soutien et de la force. Alors, ma toute première question, qu'est-ce qui fait que vous ayez tout le temps ce radio sourire Le radieux sourire. Je pense que c'est une grâce de Dieu. Parce que même quand je suis triste, euh, ça dure quelques minutes et après, je, je, je, me remets à sourire. Et je pense que c'est une grâce de Dieu. C'est parce que c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, euh, même quand je vis des choses négatives, de toujours après euh, regarder qu'est-ce qui peut être positif, qu'est-ce qui peut être tiré comme leçon et qui peut permettre d'avancer. C'est toujours de trouver des sources. Euh, de motivation, mmh. plus des raisons de faire les choses que des raisons de ne pas les faire. Donc mon sourire, il, il vient vraiment de tout ça. En fait, c'est ma nature parce que je suis quelqu'un de très, de très, de très joyeux. Mmh. Voilà. <laughs> D'accord. Alors, euh, Monaya, ça se passe comment au Sénégal Comment est-ce que vous vivez votre art ici Un pays qui peut beau être votre pays, votre pays ouais, mais ça reste quand même un pays d'accueil. Est-ce que c'est facile? C'est un pays d'accueil. Soit c'est mon pays, soit c'est un pays d'accueil. C'est comment <laughs> C'est votre pays. Voilà. C'est le nôtre. Alors, est-ce que c'est c'est facile de vivre le rap ici au Sénégal, votre type de rap vous D'accord. Alors moi, mon type de rap, donc il faudrait d'abord que je définisse mon type de rap. Allez-y. Mon type de rap, c'est, euh, si vous voulez, un rap qui est humaniste, un rap qui est militant, un rap qui est engagé et euh, un rap aussi euh, qui est intimiste dans, dans, pour, pour, pour, le cas de certains morceaux euh, et qui est très porté sur l'individu. même si en général, la plupart des thématiques sont sur la société en général. Alors, euh, comment ces thématiques sont accueillies euh, si vous voulez, dans le paysage de, de, la musique sénégalaise. Je pense que par le public, c'est très bien accueilli. Euh, il y a des tentatives, <laughs> si vous voulez, de, des tentatives qui, qui, sont un peu, moi je trouve, qui ont un, un petit caractère de dictature de certains animateurs mmh. qui, qui, aimeraient que je, je, je sois formatée comme ce qu'ils ont l'habitude de voir, des artistes rappeurs ou des artistes rappeuses. Et moi je pense que c'est très réducteur pour mmh. la mhm. personne que je suis, machallah, parce que euh, c'est vrai que je suis d'origine sénégalaise, on est de Moudéry, mmh. qui est à 20 km de Bakel, de par mon père. Mais j'ai aussi du sang du Nigeria, de Bida, j'ai du sang du Togo, j'ai du sang de la France, j'ai du sang du Bénin. Et je ne vais pas cracher sur toutes ces richesses que toutes ces autres origines peuvent m'apporter, en plus de mes origines sénégalaises. Et je pense que c'est tout ça qui fait mon monde. Et c'est vraiment cette grande ouverture d'esprit-là euh, que j'apporte à mon public. Et le public qui a la chance ou l'opportunité, justement, euh, d'accéder à ma musique, de l'écouter, ce public-là, il valide. Ce public-là, il aime beaucoup ce qu'il entend. Et. Euh, Et ce public-là, on redemande. Mm -hmm. Mais maintenant, après, si vous voulez, les, les petits obstacles qui pourrait y avoir, c'est vraiment dans le monde médiatique où euh, tu dois être dans un format, où tu dois être dans une catégorie qu'ils ont l'habitude de voir, où, euh, où tu dois être comme les gens conçoivent, mmh. ce qui ne saurait être le cas avec moi, parce que euh, je n'ai pas besoin de la validation d'autres êtres humains qui ne sont pas aussi achevés que moi, sans aucune prétention, mm. et qui ont, qui ont l'esprit fermé. Et donc je pense que les gens devraient ouvrir leur esprit euh, pour, euh, comme je vous dis, ces personnes-là, mm -hmm. des, des, des, médias qui, qui, font encore un bloc. Donc, et ouvrir tout. son esprit, d'après vous, revient à faire quoi Revient à faire quoi Revient à ne pas dire de facto que non, le public n'écoute pas ça, vous n'êtes pas le public. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes des médias qui pensent qu'elles sont le public qui écoute leurs émissions, mm -hmm. alors que c'est complètement faux. Combien même font des études pour savoir qui est mon public, qui m'écoute, euh, où est-ce qu'on m'écoute, combien de personnes à tel ou tel ou tel endroit m'écoutent Vous voyez un peu Donc, à un moment, il faut éviter de faire la confusion entre sa personne et la personne qui vous écoute. Mm -hmm. La personne qui vous écoute, peut-être qu'après avoir fini de vous écouter, elle va autre part écouter autre chose. Mm -hmm. vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous ne de ses goûts, de ses envies, et euh, en fonction de ça, euh, d'une certaine manière, boycotter un artiste ou une artiste, mm -hmm. vous mhm. voyez. Donc, euh, J'apprends énormément, j'apprends beaucoup euh, des gens. Euh, j'apprends beaucoup euh, en expérience. Euh, j'apprends beaucoup aussi des événements. Euh, et, et, ce qui est bien à Dakar, c'est que Dakar, c'est une ville où culturellement ça bouge énormément mm -hmm. par rapport à beaucoup d'autres villes de la sous-région. Mm -hmm. Donc Dakar, c'est la ville où tu as tout le temps des rencontres, tu as tout le temps des formations, tu as tout le temps des, des, des événements euh, périodiques qui s'y déroulent. Donc euh, c'est quelque chose de bien, Et, euh, et en tant qu'artiste, les problèmes auxquels je suis confrontée, oui. euh, en tant qu'artiste femme, sont ceux aussi auxquels les artistes hommes sont confrontés. Donc il n'y euh, a pas... Il euh, y, a pas, y a des problèmes qui sont spécifiques aux femmes, mm -hmm. mais les femmes, non seulement elles font face aux problèmes des femmes, mais elles font face aussi aux problèmes des hommes. Il ne faut pas qu'on pense que parce que les hommes, ils font du rap, c'est forcément facile pour mm -hmm. eux. Vous voyez, et en tant qu'artiste, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, il y a Il y a un projet qui est en cours au niveau du gouvernement, mais en tant qu'artiste, on n'a toujours pas de statut. Vous attendez toujours Oui, c'est un projet euh, qui est en cours, mm -hmm. mais euh, on n'a toujours pas de statut. Mm -hmm. Je pense que c'est une chose sur laquelle euh, le, le, gouvernement de, de, de sénégalais devrait légiférer mm -hmm. pour qu'on puisse justement euh, cotiser, avoir accès justement à, à je, voilà à toutes les à tous les avantages mm -hmm. qui sont liés à, euh, à, la cotisation justement pour notre retraite, mm -hmm. au cas où on est malade. Heureusement, on a déjà la couverture maladie universelle, mm -hmm. l'assurance maladie. Euh, mais il y a encore un grand chantier à faire. La, la CMU, vous, vous sentez que c'est une bonne politique publique Je pense qu'il qu y a des efforts de qui sont faits, mais maintenant on attend, on, on attend qu'ils euh, culturellement sur le <laughs> au niveau de la culture, oui, il y a, il y a des velléités. Parce que beaucoup il y a des velléités de changer les choses. C'est un échec. Vous pensez la même chose euh, Vous savez, moi, je fais partie de l'AMS, Association des métiers de la musique au Sénégal, mm -hmm. depuis, on va dire, 11 ans. Et euh, tout dernièrement, on travaillait, on a mis des inputs sur la loi sur le statut de l'artiste, qui va bientôt être votée, Inch'Allah. Mm -hmm. Donc, euh, je ne peux pas dire que rien ne se passe, je serais de mauvaise foi. Il se passe quelque chose. Maintenant, on attend que ce processus-là aboutisse. Okay. Maintenant, tu ne peux pas faire un bilan alors que euh, le processus est encore en cours. Mm -hmm. Tu vois D'accord. Alors, la majorité de, de tes fans, des de Goun français, peut-être quelques petits mots pour leur faire un petit coucou avant de donner la parole à Di. La majorité de mes fans d'où Sénégal. Du Sénégal, ils ne oui. parlent pas français. ah ñu ci bëri. ils vont pas à l'école. Euh, je dis pas qu'ils ne vont pas à l'école mais bon. ils vont à l'école à l'école on leur enseigne en quelle langue. am na ñu bëri ñu lay. waaw tontu ma ba pare. doo ñu jàng. dinañu jàng mais fii. bon jàng jàng bi ci ban làkk la. Euh, c'est en français. c'est en français mais gis nga ñu ci bëri maa ngi ñoom a yem. waaw mais oui ma niveau njalaxaan la nii. non bul wax loolu il faut pas minimiser les Sénégalais comme ça. je ne les minimise pas non c'est pas bien. en c'est bëgg nga wax leen nga nuyu leen quoi. leur faire un petit coucou en en wolof. pour voilà léegi soo bëgg sax yow dégg nga wolof. non mais je n'ai même pas à ça en fait tu sais rien que le fait que moi je sois africaine rien que le fait que je fasse une musique qui. qui, qui, qui, porte un message, qui porte un message d'espoir, qui porte un message d'autodétermination, qui porte un message euh, de réconciliation avec notre propre identité, et un message qui est continental, qui est africain, qui va au-delà de ça aussi, qui touche la diaspora, qui touche le monde noir en général. Je pense qu'ils peuvent s'approprier ma personne. Tu vois, mmh. je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin que euh, je fasse des clins d'œil dans une langue quelconque. Je pense que les gens n'ont pas besoin de voir ce qui nous divise, mais de voir ce qui nous unit. Mais nous ah, Ils oh. ont écrit ça ñu bëri dañ ma ko wax. fan ma ne leen Mona Yaa laay invité ñu ne ma. ni mi nekk mu làkk olof comme ça ñu xam ne sax Mona Yaa dégg na olof. waaw léegi su ma déglu nag. ah waaw bii moom leer na ak mais si je comprends pas wolof ça fait quoi. <laughs> allez ji. waaw waaw li am na solo li ngeen jot a yaatal yéen ñaar xam nga di rafetlu wax bi mun naa moom. elle communique bien ñu koy bëgg bu baax a baax di wax sénégalais yi dañ xaw am complexe ci benn affaire Mimi mm-hmm. parce que mun naa tey mi ngi rap euh, en français. mais da ngay gis tey ñun animateur ipo bi dañuy dem tele sarge ji ay sound américain ay sound français mais boo dëkkee ci dëkk bi di làkk français dañ lay boycott. Mm-hmm. dañuy bëgg nga làkk wolof tout le temps. c'est pourtant fii comme ni ko mun a waxee. gaa yëpp majeure partie français la ñuy wax wala buñ ko wax li dégg nañ ko xëy na dañuy wax olof Mouna sénégalaise la mi ngi fi di rap français di wax gaa yi dañ ko war a accueillir comme ni ñuy accueillir benn OMG wala keneen ak keneen. Mhm. mais dañuy naan Mouna tout le temps français la euh, ñag la affaire yooyu. Mhm. si ñag boobu noonu sa laay dugg tout le temps moom it da koy faral di wax euh, Mouna sénégalo ñag. sénégalo ñag lu waral loolu. <laughs> loolu ngay wax mais bien sûr parce que c'est mix des deux. une discrimination wala. Non, tu sais, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de venir me m'ériger en victime ou bien dire oui que je suis discriminée. Et comme je l'ai dit tantôt au début, c'est une minorité, c'est une minorité de personnes incultes mm -hmm. qui aujourd'hui a l'opportunité d'avoir une émission ou bien mais c'est vraiment une minorité. Mm -hmm. Mais la majorité, là, franchement, je dois dire Alhamdoulilah, parce que si je tiens un autre discours, la plupart des gens qui, vont me, connaissent, qui me connaissent vont dire non, mais qui Défanto, quoi. Mm -hmm. Je n'ai pas le droit de tenir un autre discours. Mm -hmm. Parce que que ce soit au niveau des institutions, euh, je suis. Euh, je suis je suis, comment comme artiste sénégalaise. Mm. Les gens ne sont pas, non, elle est Les gens ne sont même pas dans ce discours-là. Mm. Sinon, l'État du Sénégal n'allait pas me confier la charge d'aller le représenter au huitième jeu de la francophonie où pour la première fois, la catégorie chanson mmh. est revenue avec une médaille. Pour la première fois. Mm. Et c'est un concours international qui se tient tous les quatre ans. Si l'État sénégalais ne considérait pas comme

Euh, que ce soit même dans le hip-hop féminin, c'est la même chose. Je suis la grande sœur. Mm -hmm. Tu vois, j'ai pas de clash avec qui que ce soit. Après, il y a beaucoup plus, il y a des gens avec lesquels je m'entends mieux qu'avec d'autres. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une minorité de, de, de, de, quelques personnes qui n'ont encore, qui n'ont rien compris de la vie. Et, et je veux pas ma, et je veux pas m'apesantir sur ça, mm -hmm. alors qu'à côté, il y a de très belles choses qui se passent, mhm. alors qu'à côté, euh, machallah, quoi. Mhm. tu vois. Et j'ai pas, j'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Mm -hmm. Parce que voilà, à côté, il y a, y a, de superbes choses qui se passent, honnêtement. Par exemple, là, euh, on est à la veille de la journée de la femme. Oui. Voilà, le 6, je joue à la MCU. Mm -hmm. le, le, 7, je pars pour Bruxelles. Le 8, j'y joue. Le 11, je retourne sur Abidjan pour revenir à Dakar. Et wow. à la fin du mois de mars, Inch'Allah, on a, un grand concert que je prépare avec le ministère de la Culture en association avec le ministère de la Femme. Et euh, même le fait que je parte le 7, il y a quelque chose comme 4-5 dates mhm. euh, que, je rate ici au Sénégal. il y a plein de médias internationaux qui venaient au Sénégal. Et je mhm. c'est parce que deux, trois personnes aigries euh, ont l'impression d'avoir mmh. sur peut-être un média qui n'a même pas une dimension internationale, mmh. que je vais me pencher dessus et puis aller faire des émissions radio pour en parler. Ça n'a pas de sens, en fait. Est-ce que vous avez eu à vivre cela Par exemple, aller quelque part et victime d'une scène de discrimination ou, ou bien d'être hué parce que peut-être euh, ils apprécient pas ton style de rap Être hué Oui, peut-être. Non. Jamais. Non, parce que non. Une je fais... expérience, peut-être un incident du genre, vous l'avez vécu Non, jamais. Que le public mm -hmm. Que le public, non, le public a toujours, c'est ce que je suis en train de vous dire, le public, il est toujours très, très, très réceptif. Mm -hmm. Il y a des publics, au début, ils connaissent pas. Donc, au début, ils vont te regarder, ils vont t'écouter, ils vont, ils vont découvrir. Mm -hmm. Vous voyez Mais après, maintenant, ta prestation, tu as énormément de manifestations d'intérêt. Et tu le vois sur tes réseaux, quand tu surveilles tes réseaux et tu regardes les courbes, mmh. et tu regardes le moment où tu as eu la manifestation, le jour même et les jours qui suivent, tu vois qu'il y a énormément d'adhésions, il y a énormément de messages quand on voit, oui, je t'ai vu à telle scène, j'ai adoré, quand est-ce que tu fais ton prochain concert C'est c'est que ça que j'ai comme réaction mmh. du public sénégalais. J'ai que des réactions très, très, très positives. Très positives. Oui. Et ça te fait avancer. Ouais. Mais forcément, ça te fait avancer, puisque moi, euh, comme je vous ai dit tantôt, moi, je me nourris mm -hmm. d'énergie positive, mm -hmm. je mhm. me nourris d'amour. Et, et, voilà, ça fait partie d'un de mes moteurs. Mm -hmm. C'est vrai que aussi, mon public, il n'est pas que sénégalais, euh, il est un peu partout euh, en Afrique de l'Ouest, euh, il est aussi un peu dans la diaspora. Donc, euh, si tu veux, c'est vraiment toutes les énergies de toutes ces personnes-là réunies qui font qu'aujourd'hui, même si on me dit que je fais un rap euh, qui est un peu trop classique et euh, qui est un peu trop militant alors que les gens veulent autre chose, euh, toutes, du, ces là, exactement, énergies positives exactement, toutes ces énergies me confortent dans le mm. fait que je ne prêche pas dans le désert et que je ne fais pas cela en vain parce que je, moi, je n'ai pas pour prétention de, changer le monde. Mmh. D'abord, avant de vouloir le monde, il faut il faut changer en soi ce qu'on veut voir dans le monde. Mais quand tu as, comme ce que je disais à Gilider, quand tu as des gens qui te disent eh, euh, j'ai écouté ton morceau, j'ai écouté ton discours et ça a impacté sur ma vie et j'ai changé de manière de voir les choses et ça m'a permis de continuer mes études et ça m'a permis euh, d'aller plus loin, de, de, de dépasser mes limites. Moi, pour moi, c'est c'est dope. Ça veut dire que en tant qu'être humain, tu ne viens pas donner un message qui exhorte les gens à l'autodestruction, mais qui les motive à devenir meilleurs et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, pour ça, euh, Amoul Faye, quoi. C'est la plus belle des choses. Monaya, pourquoi dans tes chansons tu aimes donner des messages forts aux Africains Pourquoi j'aime donner des messages forts Parce que je pense que j'ai besoin de messages forts. Quand j'écris une chanson, je me parle à moi-même d'abord et ensuite je, je parle. Je ne, je, je ne, me mets pas en tant que donneuse de leçons. en tant que moralisatrice. Mais euh, j'appelle mes frères, je leur tends la main et je leur dis écoutez, venez en cause, quoi. Mm -hmm. Venez, on se pose les bonnes questions. Venez, on essaye de faire quelque chose. Venez, on essaye de changer la donne. Mm -hmm. Parce que, euh, parce que euh, voilà, on est sur euh, le continent qui est le plus appauvri mm -hmm. au monde. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est les plus pauvres du monde. Mais on est les plus appauvris. <laughs> et On nous parle d'indépendance, mais jusqu'aujourd'hui, il y a une forme d'impérialisme, de néocolonialisme. Mm Et vous avez vu avec les récents événements comment on nos frères africains vers d'autres pays européens. En tant qu'Africains, c'est tragique ce qui se passe. Mm-hmm. pourquoi Parce que la France-Afrique a, a, changé de nom, on dit que ça n'existe plus, mais c'est le même système qui est là, mais le, mm-hmm. même système, mais les noms changent, c'est tout. D'accord. Peut-on penser aussi que vous êtes un peu, vous portez souvent euh, les habits d'une activiste <laughs> L'activiste, c'est celui qui joint l'action à la parole, qui va sur le terrain. Est-ce que je vais sur le terrain je fais, je fais de ma scène un terrain. Mm -hmm. Je fais de ma scène un terrain et euh, j'assume mon répertoire. Il m'est arrivé d'être dans des audiences très occidentales mmh. et de faire la part des choses pour que les gens comprennent qu'en fait, mon combat, ce n'est pas contre les Blancs, mmh. les Français. C'est contre les, les, les, actions que le gouvernement français euh, pose en Afrique. Il faut vraiment faire la distinction entre les systèmes, les gouvernements et les peuples. Parce que même en France, quand vous voyez avec tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, avec toutes les manifestations, c'est que leur peuple aussi a exploité. Vous voyez un peu ce que je veux dire mm. Donc, ce n'est pas les peuples contre les peuples. eux aussi, ils souffrent là-bas. Il, il y, a, énormément de Français qui souffrent aussi, comme il y a énormément de Sénégalais qui souffrent. Mais c'est une question de gouvernement. Jusqu'à quand la France va faire de l'ingérence en Afrique Jusqu'à quand euh, le président français va appeler cinq présidents ou dix présidents africains et puis les réunir comme si ce sont ses enfants mm -hmm. Combien de présidents africains peuvent convoquer une réunion et puis convoquer dix présidents européens mm -hmm. Le jour où ça se fera là, je pourrais dire que voilà, nous sommes respectés. Mm -hmm. Mais aucun président africain ne peut convoquer dix présidents européens et puis vont venir s'asseoir dans son salon comme des enfants pour lui rendre compte. Et pourquoi aujourd'hui il y a ça alors qu'il y a des Africains dans, plus de dix pays d'Afrique mm-hmm. Donc on peut dire que on a des communautés dans ces dix pays-là. Il faut qu'on appelle les présidents de là-bas pour savoir mais mm-hmm. pourquoi, on ne peut pas le faire Et pourquoi c'est nous toujours, il faut qu'on nous traite comme des, comme la sorte. Pourquoi il faut que des présidents français viennent de l'université de Cher, Anta Diop, pour dire que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire, l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire mm -hmm. Mais c'est tragique. Et franchement, ma musique aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'on ait vraiment cette, cette, cette, estime de soi euh, et, et qu'on qu'on arrête de vouloir être validé par l'extérieur. Il faut que aujourd'hui, j'ai au lieu de me demander qu'est-ce que le blanc va penser, si vraiment je me demande ce que l'autre doit penser, Je me demande qu'est-ce que Jilly va penser de ce que je fais. Qu'est-ce que toi, tu vas penser de ce que je fais. Mm -hmm. Tu vois, aujourd'hui, ça doit être ça, en fait. Tu dois plus avoir honte de tes gens que d'avoir honte du maître. Mm <laughs> -hmm. Parce que sinon, tu auras toujours un maître. Mm -hmm. Même, il y a même des phrases abusives, genre l'homme noir est mauvais, l'africain est mauvais, euh, des trucs comme ça, genre euh, Tu vois, tout, tout ce genre de phrases euh, avec plein de poison et qui, qui vicie quand même, euh, si vous voulez, la, la, la, la, vie dans la société, les habitudes des gens. On, on, doit arrêter en fait, on doit commencer à penser autrement, on doit commencer à agir autrement si on veut que les choses changent. Mm -hmm. France-Afrique, néocolonialisme, êtes-vous avec ces gens qui prônent le France dégage C'est qui qui prône ça Certains activistes. Ok. Oui. Si je suis avec eux, mm -hmm. c'est-à-dire Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec euh, le fait qu'il prêche pour que la France euh, arrête cette ingérence dont vous parlez Moi, je pense tout à que chacun, chacun, dans son domaine, mm -hmm. doit poser des actes pour que la situation change. Que tu sois médecin, que tu sois artiste, mm -hmm. que tu sois euh, mécanicien, <laughs> et que tu sois ingénieur aussi. Mhm. Ingénieur, c'est de voir quelles sont les ressources de ton pays pour pouvoir justement créer, inventer des choses et pouvoir justement, euh, pour qu'on puisse avoir un développement qui soit adapté à nos réalités. Tu vois Donc moi, je pense que dans ce combat-là, on a besoin de tout le monde. Mm -hmm. Et euh, on a besoin de gens sur le terrain, on a besoin de gens derrière les ordinateurs, on a besoin des gens devant la télé, on a besoin des gens à la radio, on a besoin des gens sur scène. Mm -hmm. Il faut que le message soit compris. D'accord. Quand on parle d'activisme, forcément, on pense à votre compatriote, Kémy Seba. Vous le connaissez Avez-vous des relations avec lui Kémy Seba, je l'ai vu une fois, mais rapidement, on s'est juste dit bonjour. Et la première fois qu'il m'a vu, il fait Waouh, African Queen Je fais pourquoi Il fait Oh, t'es majestueuse mm -hmm. Mais c'est parce que j'avais euh, encore ma, ma coiffure. Euh, avec la, la, crête et les cheveux crépus et tout. Voilà, bon, je, je, porte des dreads. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc j'avais aussi un voile mauritanien qui a été fait par Nomade, mm -hmm. Mariam Diop. Donc euh, il euh, y avait vraiment tout ça dans, dans, dans, dans la prestance et tout. Mais après, comme euh, j'étais partie pour enregistrer, après, je ne l'ai plus revu et il était en train de discuter avec d'autres activistes. Mm -hmm. Et moi, j'étais partie sur le lieu pour faire autre chose. Donc, euh... Tout ce qui lui arrive, euh, qu'est-ce que ça te fait Vous êtes au courant déjà Oui, je suis au courant de, de du fait qu'il soit euh, déporté par l'État du Sénégal. Et je pense que ça ne nous fait pas honneur. Mm -hmm. Parce que le Sénégal est appelé le pays de la Teranga, une terre hospitalière Et on fait mentir cette appellation en ayant ce genre d'acte. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais doit avoir une vision. Mm -hmm. Il doit être fier que le premier symbole anti-CFA parte du Sénégal. Parce que le CFA, c'est une monnaie de domination, c'est la monnaie du colon. Mm -hmm. Un État ne peut être souverain s'il n'a sa propre monnaie. Donc, ce que je pense, c'est que ça ne nous fait pas honneur, mmh. euh, les actes posés par le gouvernement sénégalais par rapport à Kémy Seba, euh, le fait de de, de, de, le chasser du pays comme un malpropre. Parce qu'en tant qu'Africain, tu ne peux pas chasser un autre Africain. Il si c'est qu'il y avait un mandat d'arrêt international, parce qu'il aurait commis des crimes, j'aurais compris. Mmh. Parce qu'il est demandé par une justice, j'aurais compris s'il avait commis un crime. Mais si ce qu'on lui reproche, c'est de poser des actes symboliques, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être économiste pour savoir que nous sommes dans un système de domination. Mm -hmm. euh, je pense qu'on devrait être fier de compter ce genre de personnes-là dans notre pays et de se dire c'est ici qu'il a fait son arme. Mais de là à brûler ses armes plutôt. de 5000, est-ce que l'acte n'est pas aussi euh, Dans la loi, c'est interdit mm -hmm. de le faire. c'est un délit. Mm -hmm. C'est un délit, mais ce n'est pas un meurtre. Vous n'êtes pas contre alors Pardon Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit de, il s'agit de, de, de, voir ce qui est en fait. Il s'agit de voir ce qui est. Il s'agit d'être vraiment très objectif. Vous l'auriez fait vous, vous Comment fait Moi, je fais les choses autrement, mais ce n'est pas parce que je ne fais pas une chose que la chose n'est pas bonne. Mm -hmm. C'est pour ça souvent quand je parle, je vous dis que moi je parle sans aucune prétention. C'est pas parce que moi je n'aurais pas fait une chose que j'aurais forcément fait le bon choix mm -hmm. et que la personne qui ne fait pas comme moi fait le mauvais choix. Attention. Mm -hmm. Chacun fait comme il l'entend. Et euh, moi je pense que quand la cause est noble et quand il ne s'agit pas d'incitation à la haine, d'incitation à la violence, d'incitation à la discrimination, euh, d'appel à la guerre civile, ce genre de choses-là, euh, moi pour moi, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Vous voyez, quand, quand il n'y a pas d'attaque à l'intégrité morale ou physique des individus, moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. il, tu as le droit de... Tu es, tu es libre d'exprimer ton opinion. Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai qu'en brûlant un billet de la banque, euh, c'est quand ça s'est passé que, voilà, on a tous su que... Euh, bon, beaucoup qui ne le savaient pas ont su que c'était euh, un acte qui était répré euh, répréhensible et que c'était réprimé par la loi. Mais euh, je ne pense pas que la peine, euh, dans le code de procédure pénale qui va avec euh, la condamnation de cet acte-là, soit de, de, sortir la personne du pays. <laughs> C'était pas du tout gentil. il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être conséquent, il s'agit d'être cohérent. Mm -hmm. Et il s'agit de respecter la loi aussi. Le fait qu'on le convoque à un procès, qu'il vienne à son procès et qu'on l'empêche euh, de répondre présent, ça n'a pas de sens en fait. Mm -hmm. Depuis lors, vous n'avez, vous n'êtes pas entré en contact avec lui pour peut-être lui manifester votre soutien Même avant ça, je n'étais pas en contact avec lui. Vous ne vous fréquentez pas mais est-ce que vous entendez ce que je vous dis depuis tout à l'heure D'accord, je viens de <laughs> comprendre. ok, j'ai compris. Alors, Monaya, la rappeur féministe, vous êtes d'accord avec cette étiquette Vous le portez bien Je porte plein d'étiquettes. Et jusqu'à aujourd'hui, même, vous me dites, oui, euh, bienvenue chez nous. Mais vraiment, c'est compliqué. Je porte énormément d'étiquettes. Maintenant, euh, est-ce que, est que je, je suis d'accord avec tout euh, Tu sais, le, comme je vous ai dit tantôt, hein, le regard de l'autre euh, m'importe très peu. Mm -hmm. Maintenant, si on doit parler du féminisme, moi, je, je, suis pour les femmes. Je ne suis pas contre les hommes parce que c'est un homme qui m'a éduquée. Et c'est mon père. J'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est mon père qui m'a éduqué, mon adolescence, euh, mon entrée dans l'âge adulte. Et, et, voilà, donc je, je comprends les hommes. Parfois, il paraît que j'agis comme un homme, <laughs> malheureusement. Et je comprends beaucoup les hommes. Donc, je ne suis pas contre les hommes, parce que j'ai des frères que j'éduque, et j'aimerais pas que euh, ces frères-là soient considérés comme, les, les, je sais pas, comme des sous-êtres. Non. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand chantier au niveau des droits de la femme mmh. et il faut que les actes soient posés. L'année dernière et les années antérieures, on a eu énormément de féminicides au Sénégal mmh. et dans beaucoup d'autres pays du monde, mais je parle de là où je vis, je parle de chez moi aussi. Et à un moment, il faudrait que tout ce qui est violence conjugale, ça s'arrête. Mmh. Il faudrait que tout ce qui est viol à l'intérieur des familles, ça s'arrête. Et qu'on arrête de mettre le, le masselet et le soutre autour. Parce que ce sont des vies qui sont gâchées. Il faut que la victime cesse d'être la coupable. Il faut aussi que, à compétences égales, on puisse avoir le même salaire, mm -hmm. parce que ce sont les mêmes études qu'on fait et c'est la même scolarité qu'on dépense. Euh, il faut aussi que euh, on arrête d'harceler les femmes euh, par abus de pouvoir quand elles cherchent du travail, ce genre de choses-là. Euh, ce, ce, il faut que ce, le harcèlement sexuel aussi s'arrête, mm -hmm. parce que si on continue avec tout ça, on aura une société malade. Mm -hmm. Déjà là, euh, <laughs> c'est un peu bizarre et tout. Et on aura le contraire de ce qu'on veut parce mm -hmm. que à un moment, les femmes vont vraiment se, se, se, révolter. Et vous savez, quand vous avez un comportement qui est en réaction à quelque chose, mm -hmm. vous ne pouvez pas le maîtriser. Quand c'est une réaction à quelque chose. Et là, on sent que les femmes, elles en ont vraiment marre. Quand vous regardez la plupart des femmes qui sont incarcérées, euh, quand vous regardez le crime, euh, le plus fréquent, c'est celui de l'infanticide. Mm -hmm. Mais l'enfant, il, il, ne se fait pas seul. Mm -hmm. Et c'est parce que aussi des hommes refusent d'assumer leur, leur, leur, paternité, leur responsabilité. Vous voyez un peu Donc il y a vraiment tout ça qui fait que euh, aujourd'hui on dit que je suis féministe, oui, mais je ne me revendique pas euh, d'un féminisme euh, euh, occidental où euh, il faut Il faut, il faut dire ce qu'on pense, comment on pense, en montrant ses attributs sexuels. Je ne crois pas en ça. Moi, je pense déjà que les gens, ils s'habillent comme ils veulent et tout. Mm -hmm. Mais je pense que euh, la lutte, en, en, tout cas dans mon environnement, la lutte pour les femmes, c'est pas le droit de montrer son sexe qu'on recherche, en fait. Nous, on recherche autre chose. On recherche le droit d'acquérir euh, de la connaissance, On recherche le droit de s'autodéterminer, de faire le métier qu'on veut faire, euh, le fait d'exister par nous-mêmes et de ne pas forcément exister à travers euh, une tutelle. Mm -hmm. et, et, voilà. Voilà, dans ce sens, quels sont, quels sont les actes qui ont été posés Alors, dans le sens que les femmes, voilà, arrêtent de s'exhiber, d'être responsables. Est-ce que vous, vous avez produit Non, je n'ai pas demandé que les femmes arrêtent de s'exhiber, d'être responsables. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas demandé ça aux gens. Vous m'avez demandé, est-ce que je suis féministe Je vous ai dit quelle est la nature de mon féminisme et quelle n'est pas sa nature. Mm -hmm. Après, les gens font ce qu'ils veulent, j'ai rien à leur dire. D'accord. Est-ce que vous produisez quelque chose pour euh, sensibiliser euh, le public ou bien peut-être les hommes qu'ils font côté viol et les violences qui sont faites sur les femmes Oui, il y a, euh, il, y a il y a, des projets, il y a quelques projets que j'ai sous la main mm -hmm. et voilà qui vont bientôt éclore, Inch'Allah. Si j'ai, euh, là, je suis à la recherche de partenaires financiers et matériels justement pour, euh, pour les réaliser. Mm -hmm. Et ensuite, euh, c'est aussi dans la manière dont j'aborde des thèmes, c'est aussi euh, les, les événements, les panels auxquels je participe. Mm -hmm. Et voilà, donc si vous voulez, euh, cette action-là, elle, opère, elle opère tous les jours, mm -hmm. elle opère au sein de ma famille, parce que euh, c'est aussi dans la scolarisation et dans pousser jusque dans les études supérieures les femmes, mm -hmm. euh, en tout cas mes sœurs. C'est vraiment euh, cet appui-là que, que j'apporte, qui est dans ma, et dans ma famille et à l'extérieur de ma famille, parce que grâce à ma musique, de par ma musique, j'ai dans toute la sous-région, mm -hmm. plein de jeunes qui ont mon numéro direct, qui mhm. m'appellent maman, qui m'appelle grande sœur et euh, à qui j'apporte un soutien financier quand c'est pour des études, quand c'est pour euh, décanter des situations Vous qui vont leur permettre d'avoir des jobs. Non, je le fais avec mes fonds propres. <laughs> C'est pas grand chose que je donne, mais je fais comme je peux. Je les considère comme mes petits frères, comme mes enfants. Alors, d'après mes recherches aussi, vous êtes juriste de formation. Alors, pourquoi avoir choisi d'être rappeuse au lieu de porter la robe noire <laughs> c'est une très bonne question. Mm-hmm. Alors, c'est une très très très bonne question. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu faire de la scène. Au début, je voulais être comédienne, mais euh, euh, à un moment, c'est parti vers la musique parce que j'ai commencé. À, euh, je suis rentrée dans la musique par le piano, donc j'ai joué beaucoup de musique classique, de ragtime quand j'étais ado, et euh, après, j'ai commencé à faire du, du rap en studio juste pour m'amuser. Ça, c'était après mon bac. Et mon père je lui ai demandé, je lui ai dit que je voulais faire de la musique et tout, une profession. Mm -hmm. Et il m'a dit, écoute, euh, tu as commencé des études de droit, tu sais quoi, on fait, on fait un deal. Mm -hmm. Tu finis tes études, après tu fais la profession que tu veux. Mais euh, garde ça parce qu'on ne sait jamais. Mm -hmm. Et tu es une femme et je ne veux pas que mes filles dépendent d'un homme. Je veux que même en allant dans votre mariage, vous ayez déjà un background. Mhm. Parce que quand tu dépends d'une autre personne, tu es soumis à, à toutes les lubies de cette personne-là. Mmh. Vous voyez un peu Et du coup, euh, il nous a toujours exhortés à être très, très indépendantes. Et, et mais pas forcément à être... Euh, comment on appelle ça À être anticonformiste, contre la loi, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Mais il nous a toujours exhortés à être très indépendantes. Et du coup, Après mes études de droit, ben, j'ai pu faire la profession que je voulais. C'était le deal avec mon père. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai rempli le deal et tout. Mais rien ne dit que je ne vais pas faire euh, à mon vieil âge d'autres formations <laughs> dans d'autres domaines parce que j'adore apprendre, mm -hmm. j'adore étudier et c'est des choses que je fais euh, en autodidacte et tout, tout ça. Mm -hmm. D'accord. À mes auditeurs, je rappelle que nous sommes dans cette <laughs> émission avec Monaya et les rappeuses féministes bénino-sénégalaises. <laughs> Donc, euh, Monaya, parle-nous un peu de tes débuts. C'était comment Mes débuts dans le rap On va dire qu'ils étaient éparses. Déjà, j'ai commencé euh, au Burkina, je crois que c'était en 2000-2001, où j'ai posé un des plus grands studios à l'époque. Et euh, j'étais au Burkina pour un moyen séjour. Et ensuite, je suis rentrée sur Cotonou, où vivait ma famille. Et c'est là que j'ai rencontré un collectif d'artistes euh, qui s'appelait les Malo Riders. Donc eux, ils étaient beaucoup plus dans la dancehall et tout. Donc c'est là où j'ai commencé à toaster et tout mm-hmm. et à faire des sound systems avec eux. Ensuite, je suis rentrée dans un label euh, qui s'intitule le Taka Crew. Mm-hmm. Euh, en 2004, je crois, oui. Et c'est dans ce label-là que je suis restée euh, pendant 2-3 ans et j'ai enregistré un premier single qui a été clippé, qui a été diffusé au Bénin. Euh, on enregistrait ensemble, je crois, trois ou quatre trucs. Et c'est là-bas que j'allais poser ma musique, je faisais mes maquettes aussi. Et en 2000, 2004, fin 2004, j'ai rencontré à Dakar Didier Awadi, mm -hmm. qui m'a été présenté par Guy Sepen, qui à l'époque faisait un travail, euh, qui, qui, avec qui je travaillais à l'époque comme un peu comme manager, comme facilitateur, mm -hmm. avec la presse, avec les événements et tout, tout ça. Donc j'ai rencontré Didier Awadi, qui depuis lors est, mhm. est mon mentor d'une certaine manière. Et, mais en même temps, euh, j'ai fait la connaissance de tout le monde. les premières années où euh, j'ai commencé à vouloir justement m'établir euh, dans le hip-hop sénégalais. Donc du a été la rencontre aussi avec, on va dire, tous les grands là, mm Keiti, Matador, mhm. Kanla Ils sont beaucoup. De... Et il y avait aussi avec les SZ3. Non, Simon, c'était beaucoup plus après. Après, oui. Simon, c'était beaucoup plus vers 2006. Euh, oui, je crois, oui, 2006. 2007, 2008. Non, 2006. 2006. Oui, parce que euh, quand il venait tout juste d'arriver de Bordeaux, il faisait ses tournées à l'intérieur du Sénégal et tout. Mmh, ouais. Je pense quand même que je, on est parti à Mboro ensemble ou quelque part à Mbaké aussi, tout ça. Mhm. Voilà, donc c'est. Moi, j'hésitais pas à aller vers les gens quand je suis arrivée. Euh, je suis beaucoup allée vers les gens. On sent que vous. Euh, euh, que tu fréquentiez beaucoup plus les hommes. Mais non, parce que 2005, j'ai rencontré Fatim. Uh -huh. Fatim. Fatim OBMG 44, qui jusqu'aujourd'hui, c'est même plus une amie, c'est une sœur. Mm-hmm. Tu vois Et depuis, on s'est pas laissé. On était, toujours ensemble. Mm-hmm. Vous voyez un peu Est-ce que le caractère waaw euh, euh, nekk genre femme de poigne yooyu d'aucuns disent que même euh, les hommes ont ont peur de vous fréquenter de vous aborder c'est vrai. Non, c'est faux. Je suis quelqu'un de très gentil. Même les gens, quand ils me voient, même souvent, ce qu'on me reproche, c'est que je sois trop accessible, au contraire. Mm -hmm. Ouais, c'est ce qu'on me reproche. Mais caractérielle, quand même. Non, je suis pas caractérielle, j'ai juste des principes, c'est tout. Mm -hmm. D'accord. mais je sais pas pourquoi c'est les, les, les gens interprètent ça comme ça. danga métti. dama métti. waaw non. bu leen bu wax loolu. non métti wu ma. nee danga métti mën a nappe. nappe mooy lan damay napp nii je menace les gens. non ça dépend tu sais il y a quelque chose aussi tu sais on est tous des adultes mais il y a beaucoup de gens qui sont très mal éduqués. Mm-hmm. que Dieu a beaucoup de gens qui pensent que quand ils sont en face d'une personne. Mm-hmm. qui est gentille. qui est courtoise c'est c'est que c'est une forme de faiblesse ñu xamul àdduna ñoom ñooy xalaat loolu parce que ils connaissent pas la vie en fait tu sais aujourd'hui on est là toi et moi on est là mm -hmm. mais demain rien ne dit que tu ne seras plus là ou que je ne serai plus là yàlla ñu gudd fan mais rien ne dit que demain on sera encore là donc moi comment je me comporte aujourd'hui c'est de manière à ce que ma présence soit une source de bonheur pour les autres qu'une source de, d'angoisse pour les autres. Mm -hmm. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent, tout le monde est là. Ah, mom. Tu vois, quand ils viennent, ils crispent l'ambiance parce qu'ils ont une aura qui est négative, négative plutôt, et parce qu'ils sont négatifs. Mm -hmm. Alors qu'il y a des gens, quand ils viennent, les gens savent qu'ils vont passer un très bon moment. Et moi, je fais partie de ces personnes-là mm -hmm. parce que, voilà, je, je, donne du soleil et j'adore faire ça. Mhm.

Ça a juste à voir avec ma spiritualité, mmh. avec ce en quoi je crois et avec ce que je veux pour moi. Mhm. Voilà. Très bien. ji waaw man damay dugg ak moom si projet bi Petits Oiseaux. la projet bi tudd mais avant projet boobu di génne EP bi jotoon nga génne album mixtape voilà. oui avant euh, que Petits Oiseaux ne sorte. En 2009, j'avais sorti un album intitulé À fleur de mots, mm -hmm. mais j'ai sorti l'album Et euh, je n'ai pas beaucoup fait la promo de l'album mmh. parce que j'avais déjà commencé à travailler dans les médias. Mmh. Donc ça a un peu... Euh, ça a un peu coupé le truc. Et je me rappelle qu'en 2008-2009, quand j'avais sorti euh, l'album, euh, j'avais, je vendais l'album euh, par livraison à domicile. Mmh. Je travaillais même avec des jeunes de l'université mmh. qui allaient livrer ça chez les particuliers. Il y avait un numéro sur lequel tu devais appeler. et on te livrait l'album et tout. Et euh, en l'espace d'une semaine, tout le stock que j'avais s'était écoulé. Mm. Donc il y avait vraiment un entrain, il y avait vraiment euh, quelque chose qui était en train d'être créé. Mais après, quand, quand tu bosses, après, en entreprise, tu te dis, non, demain, je vais faire ça. Non, demain, non, demain. Mm -hmm. Alors qu'en fait, la musique est très jalouse. Mm -hmm. Tu vois Et soit elle est ton activité principale, soit rien, quoi. <laughs> ton entourage, comment est-ce qu'il a apprécié ton tout premier produit Mon tout premier produit Déjà, c'était quoi Waouh C'était euh, la toute première fois que j'ai posé en studio mm -hmm. Non, le son qui, qui était sorti, ça s'appelait comment Le son euh, Toutes les femmes de ta vie C'est ton tout premier son Sorti officiellement oui. Ah non, c'est Frères dans, ouais. le, dans le label Takakru. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est sorti officiellement au niveau des médias Quel et tout, tout ça. Message ah euh, si non on peut parler de ça frère en fait c'est c'était un, un featuring mm-hmm. et j'étais avec mon frère et tout euh, qui foutait la merde qui faisait n'importe quoi et moi je le conseillais non ne fais pas ça euh, tu bien le bien <laughs> donc c'était ça en fait la, la thématique du son et ça avait ça avait fait du boom ouais ça a fait marcher dans le temps mm -hmm. Et euh, mon grand frère, quand il écoutait, il pleurait parce que euh, parce qu'il foutait la merde aussi, quoi. Donc il s'est dit, oh. C'est ton vrai frère. Non, en fait, je parlais pas de mon vrai frère parce que c'est l'autre gars du label qui a trouvé le thème. Mais ça se prêtait à à ce que je vivais en fait à la maison. Okay. Donc il pensait que c'était pour lui. Mm -hmm. Et je lui ai dit oui, c'est pour toi. <laughs> Alors que c'était faux. <laughs> waaw léegi ñu ñëw si EP Petit Oiseau am na benn sound boo si def bu tudd kii. explique ñu si tuuti sound boobu. waaw na benn EP euh, bu tudd Petit Oiseau picc bu ndaw ah madame Wolof. Mhm. picc bu ndaw <laughs> donc euh, depuis le 13 septembre 2019 EP bi six titres la am. Et puis, euh, j'ai un son qui s'intitule Qui dans Petit Oiseau. Qui, c'est un son qui est basé sur un célèbre discours de Malcolm X, mm -hmm. Who Taught Yourself. Mhm. Et je crois qu'il a tenu ce discours à LA en si je ne me trompe. Mhm. Et c'est un demande qui t'a appris à te détester. Mhm. Et pour moi, c'est un discours qui s'est tenu il avait plus de 50 ans, mais qui est toujours actuel aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, on préfère plus être tourné vers l'Occident que tourné non seulement vers nous-mêmes, mais que vers nos autres frères africains. Mhm. Et c'est ce que je disais, les métissages, quand ils sont occidentaux, ils sont beaucoup plus respectés que quand les, les métissages sont nous dans nous. Mm -hmm. Vous voyez un peu mm -hmm. Et même au sein des familles, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux constater cette discrimination-là. Et, et, et c'est ça aussi. Donc, à un moment, pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas Pourquoi est-ce que il faut que on, on, on se verse de l'acide sur la peau parce qu'on n'aime pas cette peau-là Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on connaît tous les comportements qui découlent d'une aliénation. Mm -hmm. C'est vrai que euh, le, le, peuple noir, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Mm -hmm. Et c'est, je pense que c'est le peuple même qui a été le plus violenté euh, dans, dans, dans, tout le monde, un des peuples, parce qu'il y a aussi les Indiens d'Amérique qui ont presque disparu. Nous, on n'a pas encore disparu. Mm -hmm. Mais je vais dire qu'on est le peuple le plus, tu vois, <laughs> le plus nombreux. Je ne sais même pas si c'est comme ça on accorde les choses. Mm -hmm. euh, en tout cas, bref, bref tu comprends l'idée. Je comprends. Oui. Et euh, qui, euh, qui, qui, existe encore et qui, et qui souffre énormément. Bon, après, il ne faut pas comparer les souffrances, hein, comme, comme j'ai l'habitude de dire, mais euh, on a été énormément violentés et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. ça continue jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense que les États africains devraient interdire la vente de produits de blanchiment de peau parce que c'est une injure aux souffrances de nos ancêtres, c'est une injure à ce que nous représentons au plus profond de nous-mêmes. Je le porte, beaucoup de gens dans la société sénégalaise le portent, mm-hmm. surtout qu'il y a quelques mois, on a été outrés de savoir femmes sénégalaises qui se blanchissaient la peau. Mm-hmm. Et c'est comme mais su fekkee da ngaa ñuul lan ngay def pour. <laughs> <laughs> yàq sa dee rek non mais et, et moi je pense qu'il faut qu'on qu'on s'accepte qu'on se trouve belle naturellement mm -hmm. nous sommes nous sommes les seuls à qui on demande de changer leur peau pour être acceptés de changer la la nature de leurs cheveux mm -hmm. pour être acceptés et moi si tu, mais ça veut pas dire quand je dis ça que je dis qu'une femme dépigmentée est une mauvaise femme Aucune femme qui se défrise est une mauvaise femme. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent s'éclaircir la peau et se défriser les cheveux, mhm. qui sont des féministes qui ont fait énormément de choses allant dans l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine. Mm -hmm. Vous voyez un peu ce que je veux dire mm -hmm. C'est pas parce que tu as des cheveux crépus et tu as la peau bien noire que forcément tu, tu, tu poses des actes intéressants. Mm -hmm. Mais déjà, moi, pour moi, euh, aujourd'hui, être africaine et être naturelle, c'est un acte politique. C'est un acte politique parce que les standards de beauté euh, qui nous sont imposés sont des standards de beauté qui sont occidentaux. Ce ne sont pas des... Par exemple, quand ils vont vous montrer une belle noire, une belle africaine qu'ils vont choisir dans leur concours, c'est pas quelqu'un qui a le nez comme toi ou qui a le nez comme moi. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui a un nez euh, caucasien. Mm -hmm. Tu vois Donc, c'est pas nos standards de beauté. Mm -hmm. Et à un moment, il faut qu'on arrive à nous-mêmes... Euh, à nous accepter. Non, il faut qu'on arrive à nous-mêmes à dire, ça c'est notre standard de beauté. Mm-hmm. Nous, notre Miss, elle ne doit pas ressembler à leur Miss. Notre Miss, elle doit ressembler à ça parce que nous, nous ressemblons à ça. Mm-hmm. Tu vois un peu Et tant qu'on ne fera pas ce genre de, de, de, de travaux-là, on, on, va toujours dire à nos petites filles mm-hmm. que vous êtes nées sur un mauvais continent, vous êtes nées moches, et pour être belle, il faudra être comme les autres. Mhm. Sinon, vous ne serez jamais belle, mhm. ou vous ne serez jamais considérée comme belle. Et comme on est dans une société de l'ego, de l'individualisme où l'ego est surdéveloppé et que les gens, euh, c'est du je, je, je, du moi, je, du moi, je. On met énormément le corps en avant. Mm -hmm. Et, voilà, donc on est obligé aussi de travailler sur ce plan-là. Mm Mais sinon, moi, je préfère plus travailler dans la tête des gens que sur euh, ce qu'ils euh, visuellement. Mm-hmm. Euh, parce que je pense qu'on est tous beaux euh, et que la beauté est dans dans les yeux de celui qui la regarde, mm -hmm. qui regarde la personne. D'accord. Alors, euh, de tout ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal As-tu des regrets Des regrets Waouh, c'est une question ça. Des regrets mm -hmm. Par rapport à quoi À tout. À ton boulot, ton entourage, des un vécu, des expériences. Mais est-ce que c'est des regrets Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh qui a des regrets, euh, à vrai dire. Parce que je me dis, en fait, si les choses se passent, c'est parce que c'était écrit dans ma destinée mm -hmm. et que c'est comme ça que ça devait se passer. Mm -hmm. Sur le coup, je, je, peux accuser le coup d'avoir mal et tout, tout ça. Mais après, euh, automatiquement, je me relève et j'avance. Mm -hmm. Mais j'apprends euh, de, j'apprends de l'événement, en fait. J'apprends de, de la chose qui s'est passée. Mhm. Je tire toujours des leçons et c'est ces leçons-là qui me permettent de grandir, qui me permettent d'avancer et qui me permettent justement de ne pas retomber, en fait, si vous voulez, dans les mêmes euh, euh, configurations. Mhm. Parce que tu peux pas faire la même chose tout le temps mhm. et puis vouloir avoir des, des, des, des, conséquences différentes, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Donc il faut tirer des leçons de ce que tu vis. Mais je suis pas quelqu'un qui regrette réellement. Les fois où euh, j'ai peut-être eu des problèmes de conscience, mm -hmm. c'est quand j'ai réagi et que ma réaction était disproportionnée. Mm -hmm. Mais j'ai quand même été togne. <laughs> Attention, je n'agis jamais en fait, mais je réagis, mais mes, mes réactions sont très disproportionnées. Mm -hmm. Donc du coup, parce que je suis hypersensible, donc c'est peut-être dans, dans, certains cas rares mhm. que euh, j'ai pu vraiment culpabiliser en me disant tu aurais pu laisser passer. Parce que c'est pas ce que les gens disent qui font de toi ce que tu es. Mm -hmm. Tu aurais pu ne pas calculer. Mm -hmm. Parce que euh, il faut, dans, moi, moi, je pense que dans la vie, il faut savoir c'est quoi ta mission. Mm -hmm. Est-ce que ta mission c'est de rester là en train de vouloir t'expliquer, euh, en train de vouloir te justifier auprès de tous les gens, mm -hmm. ou est-ce que ta mission c'est de te connaître et puis de faire ce que tu as à faire. Mm -hmm. Et forcément, de toute façon, les gens ils vont toujours parler. C'est sûr. tu vois. Donc. <laughs> Alors Monaya, tu as fait combien de temps dans le rap et combien d'albums est-ce que tu as sorti <laughs> Ça, c'est une question alors. Dans le rap, j'ai fait énormément de collaborations, énormément de featuring avec des artistes de partout, mm -hmm. mais vraiment de partout. Euh, du Sénégal et de partout, mais vraiment de partout. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai sorti un album, un EP, des singles, voilà. Mm -hmm. Combien de temps 20 ans, 30 ans dans le rap euh, on est en 2020. Donc, quand est-ce que j'ai commencé une carrière professionnelle C'est il y a 17 ans.

non je ne suis pas femme d'affaires je ne suis pas commerçante. du ma jaay dara. non non je ne vends rien non j'ai bossé dans j'ai fait j'ai fait beaucoup de consultance. Mhm. j'ai bossé dans euh, l'écriture dans la rédaction en mhm. tant que rédactrice en tant qu'écrivaine en tant qu'actrice en tant que chroniqueuse en tant que présentatrice oh, j'ai fait énormément de jobs. Toutes ces casquettes. mais oui. Wow. Et en tant que traductrice même, hein, euh, français Nouchi, en tant que quoi encore <laughs> Wow J'ai fait plein de jobs, hein, en tant qu'assistante aussi. Euh, non, j'ai fait plein de jobs. De tous ces métiers que tu viens d'énumérer. En tant que panéliste aussi, conférencière. Lequel t'a le plus plu La musique. la musique <laughs> la scène. performeuse. <laughs> musicien bi dañ koy gis day faral di def live band. Mhm. te bi ko commencé gis mu def yàgg na lan moo la poussé nga euh, def live band. live band ah, je joue avec un band en live euh, mes premières scènes de 2004 à 2010. Mm. sur scène et tout. Mmh. J'étais pas très à l'aise, j'avais pas l'impression de maîtriser mon environnement, de, de, les choses. Et je faisais des scènes juste pour continuer d'exister en tant qu'artiste. Je faisais des scènes en fait. Et chaque fois, je me disais non, la prochaine scène sera la meilleure et tout. Mm -hmm. Mais chaque fois que j'étais en, en, en, playback et qu'on mettait le son et j'avais le micro, j'étais dérangée. Il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait. Mm -hmm. Et je savais pas c'était quoi. Je pouvais pas mettre un nom dessus. Un nom dessus. Et chaque fois, les gens me disaient c'était bien, c'était bien. Mais même moi, je, moi au fond de moi, mm -hmm. je n'aimais pas. Mhm. Et les gens disaient non, mais t'inquiète, c'était trop bien. Je dis non, j'aime pas en fait. Il y a un truc où je me sens pas à l'aise en fait. Ils me disent mais tu as quel problème On te dit que c'était bien. Et, et euh, c'est en 2010 quand pour le Festman j'ai joué avec mes musiciens et tout tout ça mm -hmm. que j'ai su que c'était la formule qu'il me fallait. Mm -hmm. Et même après ma scène, Didier Odier est venu me dire alors c'est comment Je fais hé eh, hey, vieux père ça jade <laughs> <laughs> et il me fait, t'as trouvé ton truc, hein T'as trouvé ton truc. Je lui fais, mais c'est ce qu'il me fallait. Mm. Et du coup, aujourd'hui, euh, là, tu me prends en interview, mais quand tu vas me voir sur scène, je serai une personne totalement différente. Mm. Et ce que les gens me disent, c'est que quand on te voit tous les jours, on a envie de te faire des câlins, mm. mais sur scène, tu fais peur. <laughs> t'as un charisme de malade, en fait. <laughs> on se dit, wow en cage, hein, qui se défoule. C'est exactement ça. Et c'est vraiment

Mon enfance, j'ai passé à Cotonou avec euh, plusieurs séjours au Nigeria, au Ghana et vers la fin au Burkina. Ah, ah. Et c'était cool Ouais, c'était cool. Mhm. C'était super, on, était dans une très bonne école. <laughs> Monaya, es-tu encore à apprendre Si, me cours après. Écoute, pourquoi C'est la cause. Vous me volez mon cœur ouais. et je vais vivre avec quoi D'accord. Non, en fait, je comprends pas. <laughs> je repose ma question alors. Oui. Vous êtes marié Pourquoi tu veux vous voir On se, on se tutoyait, non <laughs> Ah, non, arrête. Non, arrête. Vous êtes marié Comment Vous avez un mari C'est quoi un mari D'accord, dis. Non. <laughs> non, je veux savoir. Fallait me définir que Marie Bénin j'allais répondre. non comme li comme <laughs> moom nangu ci wax. moom moom li muy faral di wax rek lu ëpp solo mooy nañ koy laaj tout le temps ci carrière am ak affaire yooyu. mais mais mais non non déedéet Monaya moomu nit ñi Monaya vous avez un côté jardin non. jardin c'est-à-dire si je en fait non je vous explique avant de de. comme je suis avec mes petits frères et tout, tout ça, mm -hmm. euh, avant de déménager là où je suis, j'étais au rez-de-chaussée. Donc, on avait deux patios mm -hmm. des deux côtés de la maison. Mm -hmm. Et là, je voulais vraiment faire une petite culture avec des tomates, de la menthe, mhm. des trucs comme ça, en fait. Mhm. Parce que euh, j'ai pour aspiration, justement, mhm. euh, quand je vais construire ma maison, euh, d'acheter quelques hectares à côté pour faire un champ. Non, je vous dis la vérité. Faut pas vous étonner qu'on va vous dire dans 10-15 ans que non. Elle est... Ouais, ah, mais Annie Mounaya, elle est dans les tolls là-bas. <laughs> Non, mais moi, c'est vraiment comment je veux finir ma vie. D'accord. C'est vraiment euh, avec mes canards, mes lapins, euh, avec un tol. Tu comprends un peu On verra bien. Alors, dire. Mais on parle de jardinage, non On laisse tomber. jardinage. <laughs> On laisse tomber. Mais non, ça m'intéresse le jardinage. J'adore. dinañ ci waxaat. mais maintenant voilà mais pareil gu ma. maa ngi ko mujjee. waaw bàyyi ma égali. égali wu ma. égali. waa léegi. sama kiiw jardinage bu ndaw ci patio bi jeex na ndax léegi je suis au deuxième étage. Ah, okay. tu vois donc j'ai mis ça donc incha allah. su leen defee sama promotion bu baax et ma am ay concert yu bari dinaa jënd sama tere pour tabax sama kër pour xam nga. jënd ay tool yi. pour def jardinage. voilà voilà. Ah, jardinage alors <laughs> jardin. <laughs> alors on va vers euh, la fête des femmes le 8 mars. Alors, ici au Sénégal, euh, aujourd'hui, d'après vous, l'essentiel pour les femmes, il est où Parce qu'on assiste à beaucoup de folklore, les femmes achètent des tissus et, et s'habillent, voilà, il y a beaucoup de fêtes. On a fait beaucoup lors, lors donc de cette date-là, de cet événement qui est dédié aux femmes. Mm-hmm. D'après vous, aujourd'hui, le combat, le vrai combat, il est où Mais est-ce qu'il n'y a que du folklore pendant Il y en a beaucoup. La journée de la femme et le mois de la femme. Il y en a beaucoup. Quand même. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, de, de, de femmes sénégalaises euh, qui se posent et qui, et qui parlent des, des, des vrais points, mm -hmm. qui posent des bonnes questions, qui parlent des vraies problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Il n'y a pas que du folklore. Hein. D'accord. Aujourd'hui, si on devait aider les femmes, ce serait dans quel sens, d'après vous Mais écoutez, je vais parler de mon domaine, de ce que, de ce que je connaisse le mieux. C'est vraiment euh, euh, les, les, aider à être autonomes. Mm -hmm. Vous voyez, les, renforcer les femmes au niveau des capacités euh, dans le milieu de la musique, dans le hip-hop plus particulièrement, mm -hmm. euh, leur donner les moyens logistiques et matériels mm -hmm. de pouvoir être autonomes, que ce soit euh, au niveau euh, des concerts, des représentations publiques. Euh, c'est vraiment ça, et leur donner les moyens aussi de de, de, de créer des plateformes pour, pour, pour, montrer leur art, pour exprimer leur art. Et c'est aussi tout ce qu'il faut faire côté euh, législation. Mm -hmm. voilà, c'est Le rap que... féminin sénégalais, ça va Ça avance Depuis une dizaine d'années, on a énormément de femmes qui sont revenues vers le hip-hop, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans où elles étaient toutes parties. Mm-hmm. Mm -hmm. Et du coup, euh, moi, je trouve que ça, ça bouge énormément. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand on dit rappeuse sénégalaise, on ne va pas te dire Ali, Fatim ou Mounaya Mm -hmm. On va te dire, oui, ça on va te parler de euh, Evie Crazy, de Mami Victory, de OMG, de Sister LB, même côté DJing, on va te de DJ Nina, mm même côté graffiti, on va te parler de Zaynix, mm et de Slam aussi, de Zaynix. Et euh, aujourd'hui, quelle soit la branche du hip-hop que tu prends, on va te donner le nom d'une femme. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'avant, quand on parlait du hip-hop des femmes, on voyait deux, trois rappeuses là, vite fait, mm -hmm. hein, qui <laughs> essayaient de, de bon, se faire une place. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait partie des nominations. J'ai été nominée. c'est très cool. ouais, alors, c'est donc euh, sur ces mots qu'on se quitte. C'était un grand plaisir d'être avec toi depuis 16 heures sur ce plateau de Rémi People. Nous, <laughs> Debba Benonion, ta Le plaisir est partagé. Euh, merci beaucoup. Mm -hmm. Je te remercie énormément de, m'avoir donné mais vraiment toute la latitude pour développer mes idées. J'espère que montage, ce ne sera pas coupé, manipulé, non, non. selon <laughs> et que tu vas pas faire des titres à guicheur, genre Mounaya nous parle des hommes, <laughs> tu vois, <laughs> ce genre de choses-là. non, Mounaya, quand jardin, mais bon. Il faut pas faire des putaclics, là, comme on dit, et puis les gens, ils viennent, ils font, ah, mais qu'est-ce qu'elle va dire <laughs> S'il vous plaît, ne me faites pas ça à cause de non, Dieu. Non, non, non, Faites-moi un joli titre, un titre euh, joli comme mon maquillage, hein, machallah. Merci. Merci en et, tout cas. Mais ce matin de Boumodjou, pareil gourmand. Non, mais c'est pour te dire merci. Mm -hmm. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que je t'ai pas trop fatiguée. Non. Non. Et merci à Gillider. Mm-hmm. Merci pour la force qu'il me donne. Mm -hmm. Merci pour toutes les idées euh, qu'il m'apporte parce que ça va au-delà du fait de diffuser ma musique et tout, tout ça. C'est quelqu'un qui, qui a montré un grand intérêt pour le projet et je l'en remercie pour ça mm -hmm. parce que euh, il n'était pas obligé, tout simplement. Et merci à toutes les personnes qui ont vraiment pris le temps d'écouter tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent. Les gens qui écoutent ce que je dis maintenant là, ça veut dire qu'ils étaient là depuis ouais, le début. Cannes non, Arrêtez de faire ça. Les Sénégalais, ils vont à l'école, ils parlent français. Ils ont juste pas envie de parler français, mais ils parlent français. Ah, mais ils ont le droit de ne pas aussi parler, mais ils comprennent très bien. ñuy ah. tàggoo. waaw <laughs> ah, di la jox rendez-vous Power euh, di bëggee Mounaya bu baax a baax respect ci moom di la bëggee yow mi jaajëf. te ma sama turandoo la de awa la tudd. tap <laughs> <laughs> en tout cas amoon nañ mbégte dalal ko bu baax Monaya rappeuse bénino sénégalaise sénégalaise parce que moom bëggul ñu kii. pourquoi tu veux tuer ma mère. waaw d'accord en tout cas moom lañ dalaloon tey di waxtaan ak moom ci Rewmi People. Euh, on espère que ça vous a plu cette émission ñu dem ba beneen yoon toog fi ak beneen star moo xam fu mu mënti bokk ci show bi sénégalais bi. rendez-vous samedi prochain la là restez avec nous avec nos programmes bon week-end